salaamaaleykum Kara na nga bu baax. waaw lan Colombie Sénégal li ma si wax bëriwul ah, xanaa Aliou Cissé bu fekkoon dina ma dégg bu fekkoon dina ma dégg li ma koy wax daal mooy que mu changé wage indi Gassama mu taxaw bàyyi fa Sabaly même défense bi lay indi quoi mais wage rek lay changé défense bi. milieu terrain mu indi Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana Gueye Alfred Ndiaye Sadio Mané Diao Baldé Mbaye Niang loolu mooy équipe bu war a suba Colombie bu ko defee day gagné si kàttanu yàlla. actuellement nii est ce que am ngeen yaakaar ci équipe bi de suba. non loolu bu ko tegee am naa yaakaar man bu ko tegee man am naa yaakaar bu ko tegee am naa trop nah, trop si yaakaar bay si kaw ak Sadio Mané le terrain Kouyaté Alfred gis quoi. waaw mas bi ma ciy wax moom ñu ñaan yàlla yàlla may ñu ci ndam ko waa mas bu difficile lay doon je pense que ne daal xam naa ne moom du yomb si ñun du yomb si équipe bu ñuy géwal waaye njort nañ ñi mën nañ cee am ndam loo xam ne ndam bu sedd kuy waaw lañu la ñuy daal am naa ci yaakaar ci kàttanu yàlla mais euh, damay dégg Sénégal yi bëri di wax ne Diao Baldé Keita dafa war a ñëw quoi Diao Baldé war a ñëw Diao Baldé Keita boo xoolee mas bi passé deuxième mi-temps bi dafa war a ñëw bu ñëwee ci kaw gars yi comprendre nga match dafa waroon ñëw bu ñëwoon dañuy am dara waaye sant bi comme suba njot nañ ñi déglu nañ journal dans deux jours trois jours njot nañ ñi moo euh, kuyaate match bi dinañ bokk ci match bi te njot naa ñu bis bu ñu duggee ci groupe bi Sénégal dina dóor 2-0 ci kattanu yàlla ak bon demal. mais euh, aussi tamit euh, xam nga équipe waaw équipe bi waaw coupe du monde bi moom amul équipe bu ndaw man man gëwuma lool équipe bu ndaw amul boo xoolee Allemagne tey waa ji ni mu ko def nga xam ne amul équipe bu ndaw. waaw ndax tey football daa wane waat boppam Allemagne ñu ngi nii champion du monde dañ ko éliminé fu mu nekk premier tour dem na comprendre nga suba daal lu may diggal suñu gerte yi ñu xam nga def max bi ñëpp ñu bëgg ko ñu xàccandoo ñu dóorandoo Sénégal jël ndam 2-0 daal man moom laa gis si kàttan ak taw bi taw ak taw taw tay bi daal man 2 laa gis